alhamdulilah xaq xamdi wasalaatu wasalaamu ala abdihi wa rasulih nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi amma baad euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ñu waxtaanee woon ci mbiram yonent yàlla waxtaan ci jëmmam bi waxtaan ci wooteem bi ci suñu xutba bi fi mujjee am ci loolu la ñuy sox suñu kàddu tey jii ndax dañuy wax ne jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam personnage am képp koo xam ne jàng nga ko settantal ko te njàng ma ak settantal ba nekk settantal bu wér te tegu tamit ci maandute bi nga xam ne melokaan yi nga xam ne mooy melokaan yi doomi aadama di ay melokaan yu rafet yu nit di matee yépp dafa daje ci moom alayhi salaatu wassalaam dafa sutoon nit ñi ci jawaanib yépp muy ci côté yépp yi nga xam ne ci la nit di mate benn fànn boo ko ca làmb rek fekkal ko ca loo xam ne doo ko fekk ci keneen ku dul moom ci nit yëkkatiku gi ko yàlla subhanahu wa taala defaloon mu yëkkatiku mbiram yëkkatiku fa yàlla ci nit ñi amul kenn ku mës a am lu mel noonu amul kenn kuy am itam cër bu mel noonu ci doomu adama yi yàlla subhanahu wa taala defaloon ko mu nekk ku am tagg nekk ku ñu respecté nekk ku yëkkatiku mbir yàlla jox ko xel mu rafet moo xamante ni nit musta am xel mu rafetee nit ñi muhammad xel mi muhammad ibn abdillah alayhi salatu wasalaam amoon nit du ko am itam yàlla jox ko ci xam-xam loo xam ni weesu na xam-xamu doomu aadama ci li nga xam ne indi na ko ci ay njàngale ak leer boo xamante ni moom moo leer kaw suuf yàlla yëngu ci mbiram yàlla jox ko xeetu mat yépp yi nga xam ne ci la doomu aadama ni mate xeet yu mag yooyu nga xam ne daje woon na ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam benn rek bu ci nit musaana fës dañ ne day nekk nit ku ñu yëkkati nit ku ñuy tudd ci histoire di wax ne kooku mooy diw ndax benn ci fànn yooya da caa fës da waaye yonente bi alayhi moom dafa fësul di màcc ci benn mbir di saltane leneen dafa am personnage bu ko yàlla jox boo xam ne dafa nekk koo xam ne benn ci fànn yooyu boo xool rek fekk ko ca mu nekk ko ca gën a mat ci anam boo xam ne dafa yemoo yemoo gi mooy nekkul moom alayhi salaatu wasalaam kuy yittewoo mag ci côté di sàggane beneen côté nga xam ne doo am équilibre buy am ci personnage am déedéet mais dafa nekkoon nit ku équilibré koo xamante ni benn fànn bu ca nekk cër ba ca war ma nga ca moom alayhi salaatu wasalaam du ëpp te du néew loolu moo nekkoon ci yonente ba alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla di ko wax ne ko yabal naa la ngir nga nekk ci yërmande ju ma yërëmee jàng mooy ñëwam ak yónnentam bi ko yàlla yónni yërmande la ci nit ñi kon loolu mission la boo xam ne ki ko yàlla di tànn di ko di ko jox loolu foog mu nekk ku ñu defar foog mu nekk ku ñu préparé foog mu nekk koo xam ne melokaan bu mel noonu rek moo war a daje ci moom muy mat bu mel noonu ci matu doomu aadama dafa war a nekk ci moom ndax mission bi moom moo ko laaj moo tax yàlla subhanahu wa taala dañuy faral di wax naan bi mu koy jikko la ko tagg naam wa innaka la ala xuluqin azim ndax jikko yooyu dafa lëkkaloo ak mission bi ko yàlla def bu fekkente ni newul ci moom mission bi du mat loolu moo tax ba muy nekk xale di am ñeenti at ci la ko jibril tër dindi li nga xam ne mooy faiblesse bi nekk ci doomu aadama bi nga xam ne ci la seytaane mën a jaar ba jengaloo ñu dindi ko ñaari malaaka ñu ko xotti dënn bi ko ne hada xabdu cheytaan li mooy cëru seytaane bi mu mën a am ci yow ñu dindi ko yemuñu ci loolu ñu jël xikma jël sagesse jël ak kariñ jël xam-xam sotti ko ci dënnam daal di koy tëjaat anas nee na bi mu nekkee xale nekk ci kër yonentu bi alayhi salatu wasallam di ko liggéeyal nee na bu musaana yëkkati yëreem damay gis xotti xotti bi nga xam ne xotti woon nañ ko dënnam mu marqué ci dënn ñëw bi ñu ko ñëwoon ci jamono jooju ku ñu waxoon ne ko mën nañoo xotti dëndu nit daal di cay def lañ cay def bu ñu paree ñëwaat ko doo ko gëm waaye suñu jamono ji kuñ ko wax nga gëm yonente bi alayhi salatu wasalam bi ñu xottee dënnam malaaka yi teguñ ci seen loxo rek wala ñu ëf ko mu maake wadde mel na meloon déedéet dañoo jël puso ak wañ ñëw ko dañ koo ñëw ñaw ñaw boobu dafa bàyyi woon benn trace ak marqué marqué ci dënnam loolu mooy préparation bi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala na ko kooku nga xam ne moom moo war a ñëw indi mission bu rëy boobu yàlla tuddee rahma lil alamin yàlla de la ko tuddee ju mu jëmale ci ci ci yëpp ñoom ñëpp a ci yem moo tax moom alayhi salaatu wasalaam mu doon wax naan yàlla yabaluma lu dul ngir ma ñëw mottali jikko yu kawe yi jikko yu baax yi mooy njàngaleem yonent yi fi jaaroon yépp nga xam ne seen njàngale ci benn mis benn objectif la jëm mooy defar doomu aadama ba mu nekk ki nga xam ne moom la yàlla teral ba mu nekk jëmm ji nga xam ne moom la yàlla yëkkati laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim jooju yàlla waxoon nit ñi àgg ci lool te bañ a dem ci summa radadna fa asfala saafilin niveau ni niveau bu kawe boobu nit ñi àgg ca la leen ca mën a àggale du bâtiment yi ñuy tabax du oto yi ñuy defar du avion yi ñuy defar mais mooy seen bakkan yi nga xam ne dañ koy defar fóot ko def ci jikko yi nga xam ne mooy jikko yi nit yi yëkkati nit def nit mu nekk nit loolu moo nekkoon mission yonent yi loolu ci loxo kan lay mottali ko ci loxo Muhammad ibn Abdillah alayhi moo tax mu ne innama bu'istu li utammima mahasin al axlaq wala saalih al axlaq yàlla yebalu ma lu dul ngir ma ñëw mottali jikko yooyu loolu mën nga cee résumé mission wu yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent boobu alayhi salatu wasalaam matuk doomu aadama ci moom lay dellu du ko génn mukk moo tax benn borom xam di Sufyaan ibn Uyayna waxoon ne huwa al misanul akbar mu ne yonente bi alayhi salatu mooy balance bu mag bi lu mat ci nit boo bëggee xam ak matam ak wàññeekoom nag ko ci muhammad ibn abdillah alayhi salatu wasalaam kon ci moom la ñuy doomu aadama yi di dellu bu ko génn du génn yonente bi alayhi salatu wasalaam lépp lu ñuy melowoo ci ay melokaan yu rafet ci moom la yem alayhi salaatu wasalaam mooy ki yàlla tàggat ngir mbindeef ñi te loola nekkoon ci moom ci ay melokaan képp ku jàng dundam moo xam ku ànd moom ak ku noonoo ak moom yëpp di nga xam loolu di ko nangu bu fekkente ni jiital nga maanute ci sa njàngat moomu bu ñu seetloo nit ñi ñuy tagg ci histoire dañ naan kii scientifique la woon kii guerrier la woon général la woon bu mënoon a xeex mus a gañe benn combat benn bataille kii lii la woon kii lii la woon loolu la ñuy wax mais yonente bi alayhi salatu salaam mënoo koo jox qualificatif bu mel noonu mooy mënoo koo jël nga tëj ko ci benn ci yooyu da nga koy ci yu bëri foo ko ci natt mu def ci loo xam ne keneen def ko alayhi salatu wasalaam loolu bu ñu def loo dañuy gis ne téere bi nga xam ne indi na ko di alquran bi mu ko indee wax ne yàlla moo ko ko jox ñi ko ne ko jógewul yàlla yaa ko bu doonte ni am na xel mu ko may mu mun a fent téere boo xam ne yamul ci fent ko rek yamale ko ci boppam ak ña ko gëm ñu koy jàng mais daf cee dëkk képp koo xam ne weddi nga ko ba keram yowmal qiyam ci mboolem nit ak jinne ne dajale leen seen i pexe seen i xam-xam ak seen i xalaat yépp ngeen bind téere bu mel ne téere bi ngeen indi ko bu fekkee mën ngeen mu dëkk leen dëkk bu tol noonu yaakaar naa li ñu gën a bëgg ñoom noonu yonent boobu alayhi salaatu wasalaam mooy wan nit ñi ko topp ne wooteen bi muy woote du dëgg te loola yoon bu gën a gaaw ci may leen ko moo doon dëkku boobu mu leen dëkk ñu fekk si ko ci yoon boobu moo gënoon gaaw kon seen bëgg-bëgg ci loolu moom foo ko takk weesu na ko waaye bu fekkee bëgg nañ ko te defuñu ko question bi ñu posé wu mooy leen ko teree def mu ñàkk mën bi moo fi nekk dañ koo mënul ñàkk koo mën moom moo tax moo tax mu ne duñ ko def te bu fekkonte ne alquran yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko fentoon nekkul na ci yàlla la jóge waaye fent boppam na bu mu fent ak condition yi nga xamante ni ci la juddoo ci la yaroo ak fa mu doon dund na mu tumurànkee ci xam-xam mu nekk koo xam ne munta liir munta bind waaye am capacité intellectuelle xel mu ko may mu dem ba tëral téere bu mel noonu téere boo xam ne da ciy défier nit ak jinne ne mënuñu koo def bu xelam rëyoon ba toll noonu xel mu rëy moom dina ko tere muy dëkk nit ñi ci loo xam ne xam na ne ëllëg nit dina ko mën a def bu xelam rëyoon ba mën a bind alquran xel mu rëy moom ci boppam moo koy teree dugg ci dinaan day dëkkuwaate ndax bu ci dëkkoo nit ñi te mu leer ko ne moo ko bind bis dina mës a ñëw nit def loolu nga xam ne nee woon na mënuñu ko te bu boobaa bis bu nit defee loolu mu ne woon mënuñu ko dina nekk gàcce ci moom bu ko fi fekkee bu ko fi fekkul dina nekk gàcce ci ñi ko gëm topp ko kon xam bu mu xamoon ne du musa man a nekk moo tax mu wax loolu kon loolu du waxam wax yàlla ndax yàlla moo gën a xam nit ñi yàlla moo gën a xam li nit ñi mën ak li jinne yi mën wax jooju rek moo lay wan ne la loola jógewul ci làmmiñam bu doomu aadama yeeg jinne yi dajale woon seen i pexe dimbalante ngir indi alquran du ñu mën a indi lu ni mel loola jógewul ci làmmiñu yonente bi alayhi salatu wasalam nit du wax loolu kon bu fekkonte ni ñi ko tuumaal ne moo sos alquran mu def jaloore ju tol noona ci koo xam ne doo bind doo liir nga mën a indi téere boo xam ne yëpp xam-xam ci nit ñi yëpp xam-xam ci jinne ñi mënuñu koo def mënuñoo def lu ni mel loola doyoon na nekk sax ci moom bu fekkonte ne deful leneen ci dundam dundam yépp da koo jëloon passé ko ci bind téere bu mel noonu bu fekkonte ni ñi koy ji ci Occident di wax ne dafa nekkoon rek koo xamante ni dafay voilà dem di dal ci ay nit yore ay ngànnaay yore ay soldaaram yorul woon benn daal message bu mu yoroon di ko jàllale ci nit ñi ak di jàngale ak yore ay valeur mais ngànnaayam la yoroon rek di conquérir ay suuf bu fekkonte ni loolu ni ñu ko waxee noonu la deme kon dañu xam ne jàmbaar bu rëy la boo xam ne li histoire mos ta gis ku mel ne moom te du gisati ku mel ne moom ndax xam nañ di ko toppoon ci ay nit mënoon nga leen wañ wàññi mbooloo mu néew ñoo ko toppoon yoruñu woon ci ngànnaay lu tax ñu mën lu ñuy mën a tudd ngànnaay yi digg doomu lañ yemoon lañ yoroon kon bu fekkente ni na sukkandiku ci loolu ba benn bennale arab yépp ci suufu benn état te kenn musula mën a benn bennale arab yi ci diine kenn leen kenn musu leen mën a benn bennale ci état boo xam ne moo leen di yilif ci kilifteef musul mën a nekk daw ko sax jéem ndax anarchie bi nga xam ne moo nekkoon ci seen biir moom bu réussiree bennale leen ci kaw benn diine benn principe benn état maasale ko ak li mu yoroon ci ay moyens nga xam ne mën nga jàngat xare yi nga xam ne yonente bi alayhi salatu wasalam jot na ko fay def laata mu fay jóge li ci deret tuuru dañ koy wàññi xare yi nga xam ne deret tuuru na ci ña ca faatu tamit mën nga leen a wàññi kon ban force ban ngànnaay ban guerre ban xeex la fi jëfandikoo bu tax ñuy wax ne dafa indi ngànnaay pour mën a forcer nit ñi ci diineem xoolal civilisation yu mujj yi ñu fi tabax di ko tuddee ay démocratie civilisation lu nekk xoolal pour imposer nit ñi seen i valeur ak seen mode de vie ci ay millions de personnes la ñu rey ak la ñuy rey ba jamono juñ toll te dañuy wax ne ay nit civilisé lañ xoolal dégâts yi def ci àdduna bi ci dëkk yi ñu mës a coloniser yépp liñ def ci ay crime yoo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu benn la guerre yi nga xam ne jot nañ ko fay def ñaari guerre mondiale yi ak li ci toppaat ci yeneen xeex ci guerre froide bi surtout ci Asie liñ fa éradiqué ci ay civilisation ay nit yoo xam ne liñ fa rey ak liñ yàq ci suuf si ci yoo xam ne ba léegi ay yàquteem mi ngi feeñ ci ay dëkk civilisation musul yàq lu toll noonu ñu mel noonu da ngay rus sax di leen tudd boo dee wax ci boo dee waxtaan ci yonente bi alayhi salatu wasalaam da nga leen bu dee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ngay waxtaan kon ñooñu bu ñuy wëlbatiku di ñëwaat ci jullit di leen accuser violence ak di wax di jiñ seen yonent violence damay wax ne du ñu rus du ñu rus li li li li tontu loolu mooy li yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ne ida lam tastaxi fasna ma shit àgg nañ ci amatuñu du ñu rus moo tax dañuy wax di wax lu leen neex ak a def lu leen neex duñ doon rus duñu wax lool ndax nit ñi xam nañ seen histoire moo tax yonente boobu alayhi salatu wasalaam kon ci la yàlla subhanahu wa taala benn le ñooñu yàlla di leen ko fàttali bu baax ne waskuru nicmatallahi alaykum id kuntum aadaan fa allafa bayna qulubikum fàttalikoo leen bi ngeen nekkee ay noon yoo xam ni du ngeen laalante benn nen bu ñu musaan a toj ci diggante ñaari famille yu mag ci araab yi dañ ci daan rayante ay deret tuuru ci loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam moo leen ñu nekk ay mbokk koo ci laal lal lal nga ka ca des nekk benn te yàlla tax bu fekkoonte ni itam ñooñu nga xam ne jëlee na leen ci ceddo googu dafa passé woon dundam yépp pour yar leen équipe bi yonente bi alayhi salatu salaam nga xam ne ginnaaw bi ñoom ñoo jiite àdduna ñooñu ñoo tijji àdduna ñooñu nga xam ne ñoo tijji àdduna nga xam ne moo leen formé formation boobu mu leen defal bu doon àddunaam yépp dundam yépp moom yonente bi alayhi salatu salaam defu fi leneen lu dul loolu dina nuy sëkk nekk ab bu ñu koy tuddee di ko ci tagg ba yowmal qiyama bu doon lool rek la def fekk ay nit yu toll ci foofu ci réer ak ci suufe ak ci néew xam-xam nga génn leen ci lëndëm googu jàngal leen tàggat leen former leen ba ñu mat ci côté yépp ba ñooñ ñoo mujj yilif àdduna nekk ay njiit yoo xam ne histoire dootul gisati ku jiite njiit état ci façon bu mel noonu jaloore yi ñu fi ci tasaare bi ñu tasaare l'islam bu duroon complot boo xam ne noonu yi nas nañ ko tàbbal ko ci biir l'islam indi féewaloo ci diggante jullit ñi ci rey bi ñu rey Ousmane ibn Affan wallahi kon kaw suuf l'islam moo fi féete kaw bépp système bu mën a doon yilif moo ndax boobu àdduna jullit ñaa ngi koy tijji tijji boo xam ne bu continuer woon ci anam booba leneen dootu fi des waaye complot bu mel noonu moo ko freiné allahul mustaan bu fekkoon tey itam yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa jëloon dundam yépp jeexal ko ci di woote ci diinam ji nga xam ne mooy lislaam diina ji bi mu ko fi indee dafay fekk lu bari nit ñi nekk ci ñi nekk ay yahud ñi nekk ay nasaraan ñi di jaamu ay xërëm ñi di jaamu leneen waaye lenn ci diine yooyu nekkul woon diine ju tax ñuy wax diine diine joo xam ne li nit ñi soxla ci njub ci leer juy nekk ci kaw suuf ba ñu mel ni ko seen borom bëggee amul benn diine bu doon remplir condition yooyu ci diine yi fi nekkoon yahud yi seen diine jàpp nañu seen biir la yam ku judduwul ci ñoom bokk ci ñu jël diine jooju def ko mu nekk yëfu xeet yëfu askan ak mbir moo xam dañuy sukkandiku ngir di nax nit ñi ak di leen exploité yëfu caay-caay lañ ko defoon mu nekk ci seen biir ak lañ jot a jàng ci njabar ñu boole ko ak moom njabar bi ñu jël ko jaxase ko ak seen diine di exploité ñàkk xamu nit ñi ku ñu dëkkal te xamuloo comme ñoom ay niti xam-xam lañ jàng nañ diine ñuy utiliser loolu ñu jàng di ko exploité pour naxee la nasaraan yi amuñu xam-xam ak leer bu ñu mën a jubbantee kenn ndax seen diine yahudi fowee nañ jële leen ca njàngale ma leen Isa ibnu Maryam bàyyi woon yóbbu leen ci loo xamante ni kenn xamul lan la di wax ne ñetti mbir laay jaamu te nga ne ñetti yëpp benn la benn mënta nekk ñett ñett mënta nekk benn mu nekk dina joo xamante ni nag taxawul ci ay base yu dëgër lañ cay nettali ak lañ leen ci bindal ne mooy seen téere bu leen seen yonent bàyyi ay nit ñoo ko bind téere yooyu seen digganteeg yonent ba ay siècle mi ngi fi yoo xamante ni mënuloo wax kan moo nettali diw kan moo jële ci diw kon du ay téere ñu mën a sukkandiku di ko diine woo ñi ci des ci nit ñi ci ay xërëm lañ nekk ñi di jaamu ay xeer ñi di jaamu ay garab lu waaye jàpp ne mën na koo jox li bakkanam la ci njub ndax noonu la yàlla bindee doomu aadama mooy fitra bi yàlla def ci nit daf koo gëmloo ne ko da nga am borom boo xam ne moo la sàkk moom la moo la yilif moom nga war a jaamu moom nga war a nekk jaamam bu nit ki xamul yoon bu ko teeti jëmale ko ci boromam dëgg-dëgg bi ko bind moom mooy làmbatul boppam lu mu jàpp ne lii mooy boromam rek mu def ko yàlla nit ñi dugg ci lu ne ñu koy jaamu ci jamono jooju nga xam ni ci réer la nit ñi nekkoon ci kaw suuf ju mat sëkk ci la yonente bi alayhi salatu wasalam génn moo tax mu ne inna allaha nadara ila ahli al ard fa maqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli alkitab yàlla xool na kaw suuf mu jëppi leen mu mere leen lu dul lenn lu néew ci ñoo xam ne ci ahlu kitaab lañ bokkoon lañ te ñooñu nañ war a taxawee ci jubbanti nit ñi defuñu ko kon yonente bi alayhi salatu wasalam jamono jooju la ñëw bi mu ñëwee tàmbali di wote ci diina jooju tumuranke ci lool wét ci lool néew ci doole lool waaye nekk di ci woote di ci woote bay yàlla def diine jooju féete kaw bépp diine te loolu la waxoon jamono ji nga xam ne mi ngi ci màkka ñi ko topp mun nañ leen a wàññeek ay baaraami loxo mu ne leen diine ji yàlla dina ko àggale fu mu ko war a àggale yàlla wan na ma kaw suuf yàlla taxañal na ma suuf mu jege ba ma gis ko gis naa penku gis naa sow te fépp fu sama bët bi tegu sama xeet seen nguur dina fa àgg sama xeet yàlla dina leen jox nguur goo xam ne dina àgg fépp koo xam ne sama bët tegu na fa yàlla jox na ma trésor bi nga xamante ni waa Faris ñu ngi ko denc muy Perse trésor bi nga xamante ni waa Rome ñu ngi ko denc yàlla dina jox na ma ñaari trésor yi yëpp sama xeet dinañ ko jël jamono ji muy wax loolu ay àndandoom booba mbooloo mu takku lañ moo xam ne ñi ngi biir Màkka dindi ñaawteef bañ fay def sax ci jaamoo xelam mënu mënuñu ko kuy wax loolu am na dig bu wér boo xamante ni buñ ko dig la te gëm na ko bu fekkonte ni dafa nekkoon moom yonente bi alayhi salatu wasallam deful beneen réalisation ci dundam budul rek woote ci diina jooju tempsam yépp mu passé ko ci di ci woote ak loolu li mu laaj ci indil nit ñi ay preuve yoo xamante ni képp kuy sikki sàkk bu preuve yooyu boo ko déggee di nga xam ne lii ci yàlla la jóge dëgg la indil nit ñi ay preuve yu mën a convaincre ci wàllu diine ña nga xam ne ñooy jéem a ñëw gàllankoor tey sukkandiku ci xam-xam di dàggasante mu mën a tontonteeg ñoom ba tëj seen yi gémmiñ ba ñu noppi te mooy ahlu waa ahlul kitab ay nit yi xam-xam la woon ay nit ci diine la ñu woon bi ñu lànkee bañ a nangu diineem dañoo tàmbali di dàggasante dàggasante boobu bu fi xam-xam bu wér newul buñ leen mën a tontoo gàllankoor lay doon waaye bu fekkee moom alayhi salaatu wasalaam jaamaarloo ak loolu yépp ba yàlla def diineem jii nekk lu leer lu nit ñi nangu xoli nit ñi nangu ko xeli nit ñi nangu ko nit ñi gëm ko nangu cee dugg ay mbooloo yi mbooloo ci tas bi nga xam ne lislaam def na ko ci kaw suuf dem ba àgg ci bëgg ko bëgg diine ji mu jaral leen ñu tuur seeni bakkan joxe seeni alal bëgg ko moom alayhi salaatu wasalaam mbëggeel gu raw ni ñu bëggee ñoom seen bopp bu réussirul woon leneen ci àddunaam lu dul loola mu doyoon ko sëkk alayhi salaatu wasalaam ci wàllu wooteem te loolu moom moo ko def bu fekkoon te ni itam yonente bi alayhi salaatu wasalaam état bi nga xam ne taxawal na ko bi mu jógee Màkka dem Madina état boobu nekk état boo xam ne taxawal na ko ci base yoo xam ne dëgër na dëgëraay boo xam ne tax na yeneen empire yi fi nekkoon di ay empire yoo xam ne dañ ko tabaxoon ay millénaire la ñu tabax ko ci ay junni junni at ñu yor civilisation yoo xam ne yàgg na yoroon kattan boo xam ni mën nga wax un pour cent sax nekkuloon ci loxo arabe yi ci kattanu ngànnaay ak ci ay yoo xam ne tàggat nañ leen waaye empire yooyu nguur yooyu li ñuy am am doole yépp dañoo seey ci kaw ci kanamu état bi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalam taxawal na ko jaloore jooju moom moo ko def alayhi salatu wasalam bu fekkonte ni dundam yépp benn mission la amoon tabax bàyyi ci état bu mel noonu boo xam ne day yilif kaw suuf empire yi fi nekkoon yépp mu wann ko mu seey ci biiram bu defuloon beneen jaloore ci dundam budul loolu mu doy kon jàngatal yonentu bi alayhi salatu salaam li nga xam ne def na ko moo tax kenn ci ñi gëmul yàlla dafa bindoon benn téere ne da ci dajeel téeméeri nit yi mu jàpp ne ñoo gën a marqué histoire mu xool xool xool xool xool xool gisul keneen ku dul Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam te moom gëmul yonent bi alayhi salatu wasalaam mais nangu na ni li mu def ci li mu réalisé ci histoire amul nit ku ko mës a amul kenn ku ko mës a def ci kaw suuf moo xam ci ñi nekk ay yonent la wala ñi nga xamante ni duñu ay yonent waaye dañuy ñëw ci ay yeneen mbir ñu leen di ñu leen ciy xam di leen bàkk di leen tudd ci histoire amul ku jariñ doomu aadama yi amul ku jariñ kaw suuf amul ku jariñ bindeef mi mbindeef yi lu mel ne li ko Muhammad ibn Abdullah jariñ moom moo indi civilisation ci kaw suuf leer gi fi nekk ay nit di ko nitoo ñu koy wax moo xam ci wàllu àdduna la wala ci diina la lépp ci moom lañ ko jàngee ci moom lañ ko jëlee alayhi salaatu wasalaam ànd ak loolu nga xoolaat tamit équilibre bi nekkaat ci moom mooy boo xoolee réalisation yu mag yooyu da ngay yaakaar ne tegul ci ay valeur déedéet ci ay valeur la tegu ci ay jikko ci ay yar ci ay njàngale la tegu yoo xam ne bàyyiwul benn bunt bu doomu aadama di soxla ci mbiru dundam lu dul ne jàngal na la ci la ca gën a rafet ne la defee ko nii dem ba bi jullit yi demee ca baytul maqdis Palestine jaxasoo fa ak ahlul kitaab yi dafa am benn jaaxle bu ñu jaaxle ci ñoom benn yahud yi dafay xool Salman ba mu yàgg mu ne ko man dama jaaxle seen yonent lépp la leen jàngal bàyyilu leen dara ba ni ngeen di tegginoo bu ngeen di dem wala sax jàngal na leen ko Salman na ko añ kay suñu yonent jàngal nañu sax bu ñuy dem wanag naka la ñuy tegginoo détail boobu sax bàyyi détail yi sax booy dem wanag loo xam ne sobel su nekk ci nit di loraange bu muy génne lu ñàkkee solo noonu sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale na ko ci ay xadis jàngale naka la nga ciy tegginoo kon bul xool réalisation yu mag yi ak jaloore yooyu ñu tudd léegi waaye xoolal na ci ay valeur na ko teg yoo xamante ni mooy def nit muy nit bàyyiwul benn bunt bàyyiwul dara lu dul ne jàngal na ko nit moo tax laa mu fiy jóge mu ne bàyyiwuma lu leen di jegale seen borom di leen dugal aljanna lu dul ne tegtal naa leen bàyyiwuma lu leen di soril seen borom di leen dugal safara lu dul ne tegtal naa leen mu tere leen ko alayhi salaatu wasalaam équilibre boobu da moom ak nitéem nit bi mu defoon boppam yu mag yooyu ko yàlla defal yépp taxul woon muy dund dund malaaka boo xam ne kenn mënu koo roy kenn mënu ta jàng ci moom dafa wàcce woon boppam ba bu ko nit mu sànni tagg sax mu ne la bul ëppal ci li ma tagg ndax ëppal ci ay tagg moo waral nasaraan yi dem ba jàppee Isa ibn Maryam ne yàlla la ñuy jaamu wala ñu def ko doomu yàlla kon noonu ñu ko def man bu leen ma def noonu loolu maandute la wallahi yonente bi alayhi salatu wasalaam bu doon nguur ak yëfi boppam la bëgg ñi ko gëmoon bëggoon nañ ko mbëggeel goo xam ni bu leen waxoon ñuy jàkkaarloog moom di kàbbar ak sujjóot di ko jullil dinañ ko def waaye da leen xamaloon ne loolu moomu ci dara loolu du cëram loolu indiw ko yàlla moo ko tànn ci nit ñi yabal ko ci nit ñi mu leen di woo di leen jëmale ci yàlla subhanahu wa taala kon buñ ko jël moom di ko jox lenn ci cëri yàlla yi loolu daawu ci am sax lu muy maslaam ci diggante ak saxaaba yi alayhi salaatu wasalaam loolu waraloon mu nekkoon ci biir njabootam dàllam dagg mu nekk ci biir këram di ko ñawal boppam Aysa biñ ko laajee yenn bi alayhi salatu wasallam bu nekkee këram lu muy def mun day nekk ci ay soxlay ak di dimbali njabootam di leen jàppale ci liggéeyu kër gi bu heure julli jotee mu génn dem julli ji gis nga loolu ngay seetlu ci dundu yonente bi alayhi salatu wasalam jaloore yeeg la ñuy tagg la ñuy wax ay tagg ak ci ay kaawteef yu ko yàlla defal ak cër bu ko yàlla jox waaye nite gi tamit boo ko xoolee ci moom fekk ko ci moom nite googu mooy li ngay fekk mu am am ko muy lu mu mel ci biir këram ba ab kaw kaw jóge ci àll ba ñëw di waxtaan ak moom ci soxla suñ ko soxla sëtam dugg mu jël ko daal di koy teg ci poojam fóon ko kaw kaw bi dafa waaw ne ko li ngay def man de wax dëgg yàlla du ma fóon samay doom mu ne ko ku dul yërëm yàlla du la yërëm li yërmande alayhi salaatu wasalaam moom moo doon wax naan ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te man maa gën ci sama njaboot alayhi salaatu wasalaam bu fekkonte ni itam da nga kaa xool ci wàllu jaamu yàllam ci relation am digganteem ak boroomam nga fekkaat ko li muy yittewoo mbir yooyu yépp taxu ko gàttañ lu ci beneen fànn mooy jaamu yàlla ji mu nekkee woon saxook moom dem ba aysa naan ko lii ngay def guddi ci jaamu yàlla di taxaw ba say tànk di sadd te yàlla jéggal na la sa bàkkaar yi weesoog bàkkaar yi ñëw mu ne ko mu ndax du ma nekk jaam buy sant boroomam di delloo njukkal boroomam subhaanahu wa taala moo tax mu doon wax naan maa leen gën a ragal yàlla maa leen gën a xam yàlla maa leen ko gën a ragal yonente bi mooy ci gën a yàlla ci nit ñi kon gis nga yittewoo mbiru xeetam yittewoo mbiru diine ji yittewoo jaamaarloog ay noonam yittewoo njàngale alquran yittewoo lépp terew ko woon boo ko seetaatee ci wàllu boppam ak defar sa bakkan ak jaamu yàlla nit mënu ko cee dab alayhi salaatu salaam kon loolu tamit amaatoon na ko ci ay taxawaay nga jàngat yooyu ci ay fànn yoo xamante ni benn bu ci nekk boo ci taxawoon rek yam jàngat ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam doy na am mbind am njàng moo xam ni mën na nekk luñ koy tuddee ci histoire waaye chaque fois day delluwaat ci li ñu waxoon ci équilibre bi ko yàlla defal personnage bi ko yàlla defal mu nekk lu équilibré loo xam ni fànn bu ci nekk ci yooyu wet bu ci nekk ci wet yooyu yàlla jox na ko ci loo xam ni nit du ko ci dab royuwaay la ci ci bunt boobu te ànd ànd ak du gàttañ lu ca beneen ba ca des benn bu ci nekk day nekk ak mat ci moom alayhi salaatu wasalaam kon kooku doomu aadama yi amee delloo luñ amee nañ ko njukkal buñ ko war a delloo yonentu boobu alayhi salaatu wasalaam ci wet ko bëgg ko fonk ko ak nangul ko mu mu nekk nag ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo lànk lànkal yàlla subhanahu wa taala ala kulli xaal buñ nangoo gis loolu wala buñ ko gis gisee itam duñ ko nangu mu ñooñe moom wax ak ñoom wala jëm leen a convaincre beneen mbir la ndax yàlla lañ bañal loolu la yàlla wax yonent bi alayhi salatu ne ko fa innahum la yukadibunak walakin alzalimina bi ayati illahi yajhadun wax ji wax ji dëgg nekkul ne yonent bi alayhi salatu wasalaam la ñuy weddi ndax li mu indi leer na leeraay boo xam ne xam nañ ne li jógewul ci moom waaye yàlla lañ bañal dañoo dem lëngoo ak iblis ak seytaane formé seen clan di xeex diine yàlla di xeex njubu yàlla kon yàlla lañ bañal moo tax yonentam bi mu yabal ñu làngal ko itam kon aslu mbir mi dëgg-dëgg foofu la nekk mais nekkul rek ci xool lii ndax dëgg la bu dee dëgg ma nangu bu dul dëgg ma bañ koo jël ndax bu doon loolu la ñun ñëpp nangu nañ lislaam kon coow li ñuy dégg ci ñuy wax ci lislaam ak di wax ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañuy wax ne ay signe de frustration la mooy ne ñooñu li koy li leen di yóbbu ci loolu mooy dañoo xamul fu ñuy jaar lislaam xool nañ xool xamuñ fu ñu koy jaar jéem nañ koo xeex ci fànn yépp yàlla di def lislaam di dugg ci xooli nit ñi bis bu nekk nit ñi di ko gën a bëgg nit ñi di ko gën a gëstu biñ fi tàmbalee di tuumaal jullit ñee ko wax dara seen dëgg nit ñi commencé daw di jënd ji alquran bibliothèque yi amatul sax alquran boo xam ne bu ñu traduire la nit ñi commencé dem di jënd téere l'islam te bu ñu ko liiralee seen bopp ñëpp ci ñoom dañuy tuub ndax lañ daan dégg ci l'islam dañ leen ko daan wax waxin boo xam ne baaxul dañ leen ko daan wax waxin boo xam ne bu ñaaw la bu ñu demee nag ba yëngal seen kumpa ci ñoom ñu jug bëgg xamal seen bopp ku ci jënd ci ñoom alquran du ñu traduire tàmbali di jënd ay téere yi wax ci lislaam nga xam ne ndakate li mooy lislaam ñi ci ëpp ci ñoom dañuy daal di tuub dugg ci lislaam mooy wane ne kon ñoom ñi ngay jéem a xeex lislaam waaye xamuñ ne sax ñi ngay jàppale lislaam ndax du loola ñuy giñ lislaam ci terreur bu ne lislaam daf koy terroriser nit ñi lislaam soxlawul loolu pour convaincre kenn mu dugg ci lislaam lislaam soxlawul loolu waaye ñoom bu ñuy def loolu ñu ngi propagandal lislaam mu ngi mel ne ñoom ñu ngi wootee di jëmale nit ñi ci lislaam te xamuñu ko kon diine la joo xam ne ñoom ñooñu di ko jéem a gàllankoor ak di ko jéem a yëj ak di jéem a néewal doole jullit ñi da ngay léeg-léeg di wax ne ndax dañoo jàngu histoire buñ jàngoon histoire u l'islam dinañ xam ne li ñuy def ci ay fexe yépp dina naax say te loolu la yàlla subhanahu wa taala waxoon ne ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla day dinañ jël seeni alal di ko def dépenser fu ñu toll ngir gàllankoor diine yàlla ji yàlla ne loola ñuy def ci ay pexe ak ci coono dinañ ko def ba noppi yàlla nax saayal ko def jullit ñi ñu am ndam ci kaw ñu kon yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala saxal dëgëral suñu taxawaay ci lislaam yàlla nañ yàlla sàmm te sàmm diine yi lislaam sàmm jullit ñëpp fu ñu mën a nekk ci kaw àdduna sàmm leen ci fitna ji nga xam ne mooy fitna yi réer ak fitna ji nga xamante ni mooy fitna yi rey yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala sàmm rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adaba annar rabbana la tuzig qulubana bacda id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab allahuma aslix lana dinana alladi huwa ismatu amrina wa aslix lana axiratana allati ilayha maaduna wajcal alxayata ziyadatan lana fi kulli xayr والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال allahumma na'uudu bika min jahdi al-balaa wa min daraki ash-shaqaa wa min suu'i al-qadaa wa min shamaatati al-a'daa allahumma innaa na'uudu bika min kulli shar wa min kulli suu wa min kaydi kulli xaasid برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم كف عنا شرهم بمنك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله